أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله fekk deful ko rek xamal ne jëlul يا ربنا وسلم على ما هو لخلق رحمته رضوانه واستجاب الله بنصر وفتحنا بعد ذاك القضاء والقبر هو الجاهلية الجماء صلاة على الإمام السرايا ثم آل وسلم هلا وسلم هلا والجماع وصلاة على الإمام البرايا سؤال وزاده بقبول وتوعين الله تلت كتيبة نفره طيب من الحبيب جميعا خير بنت ودونه وسمعه باسم احتجاج الأمينة للقدوم للكون فيه ذراع سلك قد نصبت دراري في كم ملحا ما أخذته صهراء مرحبا بسلك صفاته غصن سبكنا قد تجلت من وزيها لعبيبي قرق الكل والورى وسماء ورافا بزنجي جيجان أبينا الخائن كل أمة يدخل جنة بلا منوى يوم يهوى رسول الله ويوم من يسعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رضي الله عن سيدنا التجاري مؤمن الأولياء أجمعين أجمعين القائل كل سر في البرايا مده سر التجاري بكله المدفع الكبير يرمي من بعيد ورضي الله عن برزق الأعلى العارفين مولانا شيخ الإسلام ذلك القائل كل سر في البرايا مده سر التجاري وفي ترافق في خير وكما سيرك علو حتى يهون الجريس بوكي يالا ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di tatagal fii ci kër Yoro Diop ci mbooloo moo xamante ni jametu ansaaru diin ñoo ko woote jametu ansaaru diin bu commune ñoo da al santar tey nag ñu defee ko fii ci kër Yoro Diop dëkku président Cheikh Pape Ndiaye ñu ngi leen doog leen Cheikh Pape Ndiaye sa bés bi ci sa kanam bokk programme bi guddi na xam naa ne bi dañ koy fasaa rek ci lu mu gënee gaawee ñu dugg ci programme ku dégg sa tur alhamdulilah ku dégg sa tur it nga xam sa tur mi ci biir lépp bind nañ ko ci géej gi waaye duul ne ñëpp ñoo mën a jàll ngir xataayu waxtu su ko defee ñu tënk kàddu yi kàddu yi nga xamante ni moom lañ war a dawal jox conférence yi ubbi loolu rek la ñuy def jiital kàddu yi conférencier bi wax conférencier yi ñu xamal nit ñi yëpp na leen ñëpp nañ toog xaar ba conférencier bi jeex ndax mbooloo mii di Ansaru bi ni ñu am ay diplôme yoo xamante ni ay diplôme yoo xam ne dafa am ñu ko war a sargalee ci àndoo bi nga xamante ni àndoo nañ ko ci commune muy daara yi nga xamante ni dañoo aju ci commune bi dafa sant ko lool am ñoo xamante ni seen liggéey ràññeeku na lool ñu bëgg leen a décorer ci kanam mbooloo yëpp ngir ñaax suma classe bu sàggan bi ngir ñu góorgóorlu loolu nag bëgg nañ mboolem koo xamante ni yaa ngi ci commune bi rek nga teewee bés boobu képp ku bokk ci fédération bi nga xaar loolu ndax ay tour la yoo xam ne surprise la kenn xamagu kan la mën ngaa ñibbi fekk yow bokkoon nga ci biir mbooloo moomu kon bëgg nañ ñëpp toog xaar loolu su ko defee ñu ngi jiital kàddu yi jox borom dëkk mu dalal gan ñi ñu jox imaam mu dalal gan ñi bu ko defee danañ jox Cheikh Pam Ndiaye mu wax ci kàddu dëkk bi ak daayira bi bu ko nañoo jox président daayira bi waaye dañ koy tënk su ko defee danañu jox Cheikh Isaaba moom it mu jotal ay kàddu su ko defee danañu jox Cheikh Baye Alhaji mu Cheikh Papa Dam mu Cheikh Ibrahim Niass mu Cheikh Ayatoulaye Kabir mu toog si jotaay bi ñu jotaay bi su ko defee ñu jox oustaz mu ubbi ñu conférencier bi su ko defee kaddu yu matul yëpp bu oustaz joxee ñu mottali ko képp kuñ tudd doon ñu tudd la su ko defee conférence bi nii lañ ko bëgg a doxalee kon ñu ngi jox borom dëkk kaddu gi mu ubbi ñu jotaay bi bismillah

assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu eh, nuyu mbooloo mi eh, jiital nuyu bi sëriñ bi alaaji ma sinam li ci teg tafsir alaaji nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu ansaar diine ak président bi ak ñi ànd ak ñëpp eh, ñu ne kontaan nañ nga kër gi la alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ndax wax dëgg yàlla fi ñuy waxee mbirum yàlla ñëpp kontaan nañ ko kon ñu ngi nuyu mbooloo mi da leen dalal gan ñi di dalal waa dëkk waa tund bi yëpp di sant nag guni yi tamit ñi nga xam ne ñu ngi taxawoo ak daal mbir bi waa dëkk bi yëpp guni yi ndax fan yi de yëpp amuy jàll yëpp a ngi ci taxaw ngir yàlla dundal bis bi rek de jigéen ñi nga xam ne ñoom itamit alhamdulilah ah ñu ngi takkaayu di rootaka di daragal ñi di togg di joxe kon ñu ngi leen di sant di leen eh, ñi nga xam ne ñu ànd mënuma xaw ma waaye gis naa leen xam naa leen sant naa leen gërëm na leen te kontaan bu baax a baax ñu ne leen xamal ne ah waa kër Yoro Diop daal kontaan nañ ci eh, jëm bi nga xam ne yow lañ ci tey kon nag mënuma wax lool waaye ñu ngi may wax ne ah fokk nga sànni ci kàddu ndax comme yaa ciy kilifa ah doy naa leen man xëy na ma matu sax waaye ñoom lépp lu ñuy def eh, man maa cay bopp ko su ma fi néew sax dañ ñëj ba ma teew kon maa ngi leen di sant di gërëm waa dëkk bi yëpp maa ngi gërëm Papa Ndiaye mi président Ansar Dine bi ak mboolem ñi mu àndat kon maa ngi gërëm ñëpp de kontaan na ci bi Tamsir Sabacar Sarr ay waat ñëw ko fi kontaan ci jikko ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla bu def fanam te yokk maqaam alaji moo tee na buy wax dëgg yàlla alhamdulilah sincère la ndax képp képp ku bàyyi ko ci tey ba suñu càng la te wax dëgg yàlla sëtëb bàyyi sax kon ñu ngi sant yàlla di ko sant di gërëm mbooloo li ñu ci yoo dal mënuma koy waaye nag lu dul gërëm dëkk bi yëpp ci beddu borom bi ñu ngi lay sant sant nañ leen bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah nuyu waa di nuyu muqaddam yi nga xam ne ñoo fi toog ñëpp jaaree ko ci alaaji Amadou Dramé ma ne nga xam ne mu ngi toog suñ nuyoo alaaji Amadou ci tur muqaddam yi képp ku fi muqaddam rek yóbbuwaale naan la di nuyu président daayira yi fi toog yëpp te loolu bu ñu ko waxee bépp daayira boo xam ne yaa ngi ci commune Nioro la santal yóbbuwaale na la parce que temps bi moo xam ne xam nañ daayira yi fi teew di parce que daayira yi ñëw nañ mais suñu bokki bokk itam ñëw nañ ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu président moom moom itam ak ñi mu àndal di nuyu Tamsir Babacar Sarr ñi mu àndal gannaaw yi ci ma dagg ko foofu di indi ngërmaande di gërëm d'abord waa dëkk bi li tax Ansaaru bi di ma ànd ak buñ amoon yéen a ma lii dëkk bi du mooyu am naa yaakaar du sotti kon waa dëkk bi li ko dalee ci borom dëkk bi wax ak ñi ba ki gën a suufee maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant maa ngi lay ñaanal yàlla parce que fu turu suma turu yegg yéen waa dëkk bi yéen a tax pour way yegg fa parce am na nu ngeen ma doon téye ñi si biti duñ ma fat kon waa dëkk bi yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla di leen dénk Maolana Cheikh al Islam mu fajal leen seen i aajo di nuyu ak gërëm fédération fédération communale parce que dama koy faral di wax bu ñu waxee ñu ne bi Ansaaru biir commune Nioro Alassane Tall walaay duma ci lenn parce que su fekkente ne ki nga jiital ay professeurs yu ko seq ay enseignant ko seq ay xaafisu alquran ko seq ay muqaddama ko seq ñu di ko jiital pendant deux mille neuf ba deux mille vingt trois ma ne ñooñu mat ñoo baax mais du ko parce que ku xam bu jiitalee ko bu ku xam bu jiitalee ku xam ñu dem ay at ñu xam a baax maa ngi leen di gërëm muy fédération communale bi ma ànd ak leen di di leen sant di leen ñaanal yàlla fu ma toll di nuyu di nuyu tam aussi sumay bokki bokk ñi nga xam ne ñu ngi jógee ci yeneen dëkk yu fasantikoo ba ñu yégee ne Kédé Jóob la ma yëgal leen ñu ba lañ doon def ci yow temps bi moo xam du ma mun a tudd dëkk yooyu wala tudd seeni tur waaye kenn ku ne ci ñoom ak ko nga toog ngay góor ngay jigéen maa ngi lay nuyu maa ngi lay siyaara maa ngi lay ñaanal yàlla maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu ak ñëpp temps bi moo xaw a xat niñ ko bëggee woon bëggoon nañ mu gën a yaatu waaye comme conférencier bi la ñuy xaar ñu ngi koy xaar moom it ñu ngi koy beral nuyoo boppam di ko gërëm di ko sant di gërëm képp koo xam ne yaa ngi fi di wax allahumma salli ala sayyidina muhammad ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëriñ bu la jiitalee boo dugg sëriñ sëriñ bi rek buñ la jiitaloon te xam heureusement bi nga xamee ne boo qualité yu tax ñuy jiital nit mi ngi fees ci yow buñ amoon kàddu ko ëpp jërëjëf danañu la ko wax waaye amuñ kàddu ko ëpp loolu waaye sant nañ la sa kanami bokk nañ la ci sa kanami jigéen sant nañ la ci sa kanami rak sant nañ la ci sa kanami soxna lii lañ amoon tey pour wax la ko lépp luy xeetu ngërëm lépp luy xeetu sant ansaaru diin yëpp dajale nañ ko jël ko jox la ko te bu ci kanamee da nga xam ne ansaaru bi gërëm nañ la sant nañ la yii yëpp nag buy am muy Cheikh Pape Ndiaye mi garaas buy am kii toog ngi ñu war ko jox kàddu gi mooy ci man loolu ndax Pape Ndiaye bu ñu jiitee ñun ci jiite Pape Ndiaye mooy ci toog nii mooy ci saaba ndax Pape Ndiaye moo jiite commune bu ansaaru commune bu ñëw ansaar bi albatar bu ansaaru bi waaye ci jiite département bi muy Seydou Saba nga xam ne programme bu ñu muy gàmmu yi ci gox bi muy di dagg ay yitteem ci réunion di ànd ak di ñu ko taarawal tey mu daggaat yi dañoo fekk ci waat ca Pape Ndiaye kon ñu ngi lay gërëm bu baax Cheikh Issa di la wax ne feccum liir bu neexee yaa jaay téye ca mbokk yi. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما sëriñ bi ñu ñaan digal balaa ñu jóge ci alhamdulilah ñu ngi lay jiital ci nuyu di nuyu imaam bi ñu ñaanal ñaar ñooñu bu ñu leen nuyoo nuyu nañ mbooleem waa Kéré Diop waaye yóbbaale it mbooleem dëkk yi nekk ci biir commune bu Nioro ak Santane ñu ngi nuyu suñu xarit suñu soppe suñu doomu ndey kenn ci ñun bokk ci Jamhiyatul Ansarud Din bu département Foundiougne di Tafsir Babacar Sarr nga xamante ne du gan ci commune bu Nioro Occidentale waaye du gan ci dëkk bi ñu nekk ci kër yi rajo Tafsir ñu lay dalal jàmm ci sa kër di la dalal jàmm ci sa département waaye di la dalal jàmm ci sa kuréel ndax damay fàttali rek ne

ñu ngi nuyu muqaddam yi ah di wax nag ne muqaddam bi nekk ci dëkk bi ñu ngi koy nuyu ko ziar di ko jottali. yàlla boole ñu ci ngëneel loo xam ne nii ngëneel yi nga xam ne moom la yàlla di wax ne innal fadla bi yadillaahi yutiihi man yashaa kon lii mën nañu wax ne ci ngëneel yooyu ci la bokk. loolu waxtu wu nekk war naa mën a nekk ak gii ñu jëm nii nga xam ne ñu ngi teru ci kawam nga ne lu du dara lu wa azin bi naasi bil hajji yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiqin loolu mooy sababu aj nañ daje ci ay xeet yi fasalante ko ñu jógee ci ay barab yu wuutee ñu xamante wutoon xamante ñi xamante woon te gëj gisee gisee jotaay bi tey mën nañu wax ne kon ci loolu la bokk Pape Ndiaye wax na ne lu bari ci Saalum dajee nañ fi kon gëj nañoo gisee waaye lii fasale na leen tey bañ dajewaat kon dañ koy sante yàlla bu baax duñ guddal ndax guddi na ba pare te waxtaankat yi nga xam ne ni nga ko santoon na ko waxtaanal ñu mu gëstu waajal ko li gën mooy niñ ko bàyyi ak jotaayam mu mën a joxe li ci dundam te wax dëgg yàlla muy ku xadara bi xam di ko tiitaroo ci waxam ji set xam-xamam bu leer ak mën koo génne mën koo joxe dañ koy ñaanal yàlla defal ko tawfiq yàlla defal ko taysiir def làmmiñam mu ubbeeku comme ni bu Haaruna ubbeekoo woon ci Moussa wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli yàlla dimbale ko ba lépp lu ñuy wax ñu mën koo jëriñoo jotaay yi nag njëriñ li du dara lu ñu fas si loo xam ne ba ba ñu dajewaatee ci beneen dëkk wala ci feneen ñu ne lii dafa tafsir waxoon lii ñu ngi ko doon jëfee ba dajewaat nañ tey ci beneen barab mu nekk loo xam ne yóbbal lay te loolu rek yu mel nii te lii tamit ci liggéeyu Cheikh Ibrahim la bokk ansaaru diin moo liggéey lii dafa mel ni lii la bàyyi waxoon na at bu jot ñaari at yu ne war nañoo dajee ci congrès bu mel nii kon lii tey mën nañoo wax ne benn la ci façon waxin bi ak jëfin ji moo uutee waaye jëf ji benn rek la kon ñu ngi leen ci gën ñaax bu baax di leen ci encouragé di ñaan yàlla mu sax dëgër ndax lii bokk na ci lii dimbale xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi ndax loolu du dara lu dajale taalibe yi ñu noté woon nekk benn ñu àndoo nekk benn ndax euh, mbooloo mu dajee rek am nañ war nañoo am benn slogan boo xam ne moo leen takkee te mën nañoo wax ne mbooloom Cheikh mu Fall bi moo ko takkee te loolu dana dimbale xalifa bu fi mënti nekk ci àdduna yee ko jiitu da ak moom mu fi nekk yal na yàlla may ko wér te yàggal ko ci kanam mbooloo mi ndax tiitar la ci xadara bi ndax ñun ñëpp xam nañ dayoom ci xam-xam ci lewetam ci mbaaxam ci njubam ci bëgg lu baax ci def lu baax ci takkee nit ñi ci mbaax ci oyofal lim nekk ba kenn du ko xam mu mel ni ku nëbbu sax ma xaamaam mel ni la Cheikh Ali waxoon Cheikh Ibrahim ne góor a ngi nii duñ ko xam fii ci àdduna waaye duñ ko xam sax ëllëg ci àllaaxira maqaama bi sax maqaama boppam bi sax mun na ko réer moom Cheikh Ibrahim loolu nag mën nañ ko ci xalifaam bi tey di Cheikh Mouhamadul Mahi ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko wér may ko mboolem ay àndandooram bu ñu àndandooram mooy imaam mooy ñi ñi liggéey ci xadara bi ak moom loolu demet ba ci oustaz ñi toog war ñuy defal koy conférence ndax ku ne xam ne ne mission bii mu nekk ci mission Cheikh Ibrahim la bokk te lii la bàyyi waxoon wa ubrisu bi ji li dadi misaala dinaa feeñal beneen jiil bu bees indi ci ñoom misaal moo xam ne ni danañ ci déglee l'islam te tey ku mel ni moom ci tund yii nii dund na ak waa tund yi xam na seeni gën nu mel ndax doomi tund bi la xam na seeni lekk ak seeni dundin xam na seeni nekkin ak seeni dëkkuwaay kooku su toogee di wax ci xam-xam dafay gën a leer sax ki jógee ci xadra ba ñëw di ko wax ndax la waa Màkka waxoon ahlu makkata adra bi shaabiha te moom waa Makka gii la kon mu ngi koy ñaanal yàlla defal ko tawfiq di ko ñaanal yàlla kuréel gii nga xam ne ñoo ko may fursa bii ngir mu mën a génne li ci dëndam bi ndax waxkat bu nekk ak xam borom xam-xam bu nekk su amul occasion bu mu koy defee rek daanaka xam-xam bi dootu am njëriñ ndax dafay nekk loo xam ne dafay nëbbu dafay nekk loo xam dafay muuru te kenn du xam na am na ko waaye bu ko ansaaru diin mayee fursa bu am nii tund bi may ko fursa bu am nii amaana bokkuñ ci jotaayam lu bëri waaye bëri nañ ci tund yi ku ñuy wax ne programme ñu koy def waaye moom moo ñu koy defal kon mu ngi liggéeyal Cheikh Ibrahim ci buntu bii nii ñi di ko ci ñaanal yàlla may ko ci jàmm ba fépp fu fa teew rek mu mën faa joxe lu ëpp luñ ko yaakaaree yal na yàlla def jàmm ci dëkk bii nii yal na yàlla sàmm ñuñ dëkk bii yal na yàlla aar leen ñu ngi dëgg mën nawet yal nañ ci àgg ci jàmm ñu ngi nii génn ci weeru tedd bu barke bër ci démb dugg ci weer woo xam ne mooy weeru aj liñ ci doon jaamu ci yàlla di ko naafile ci ay guddi di ko jaamu ci bëccëg lépp yàlla na ko yàlla nangu yàlla nañ bokk ci xaaj bi koy fekkee déwén ak yéccee topp yëpp yàlla defal jàmm réew mi te defal ko tund wi te wus ci ndox mu sedd ba nga xam ne dana kawe si njott Cheikh Abdoulaye bàyyi Cheikh Ibrahim daf daan wax mu ne xay léegi koy dégg mu tucc te ñu ngi dégg xay yu bëri ci réew mi ci ñàkk dal ci ñàkk àndoo ci benn ci ñàkk dimbalante waaye loolu yëpp yàlla ci yàlla musal toppam Cheikh Ibrahim yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ndax représentant maire bii nii du tuuti mukk ci suñ kanam bañ na du maire ndax ki mu ak ki mu si moo ko jox maqaama boobu noonu kon lu ko di dox rek mu àgg ci kooku mu àgg ci keneen mu àgg ci keneen àgg ci keneen ba àgg ci président te réew mi xiif na ñàkk nañ tiib nañ jàq nañ te loolu yëpp bëgguñ cee bokk te bëgg nañ waxtu wu nekk di am luñ jaamoo yàlla ndax jullit lépp lu muy ut rek jaamu yàlla rek te lépp lu mu amit ci jaamu yàlla lay dellu te kenn du jaamu yàlla lu ne da am jàmm kon yàlla ñu yàlla may jàmm yàlla na yàlla may ko réew mi yàlla defal ko tund wii nii ci barke yonent yàlla Muhammad ci barke Cheikhu Tidiane yàlla yàlla faj xaajo yi ñu fi fekk yëpp nga xam ne mën nañoo wax ne mbëggeel ci Cheikh Ibrahim rek la moo xiif nit ñi ci ñuy yëkkati seeni alal di ko jox jaam bu xew bi di ko jaarale ci moom pour mu àgg ci Cheikh Ibrahim njort nañ bu baax na ci Cheikh Ibrahim tamit la jëm ndax moom lañ ko jox ndax bu doon ñun rek duñ ñu ko jox waaye al mutafilu bil mutafili mutafilun ki jokk ci ku jokk amaana bu ëllëgee nga jokk te gannaaw silsile bi bu àggee ci moom la jëm gëm nañ ne kon lu ko nit jox te lu ñu nit jox tamit ci moom la jëm jox googu nag ñu ko jox ñu ngi ñaan yàlla jotaay bii yàlla bu mu tas mukk nit yóbbaale xaajoowu fajuwut ci barke yonent bi gëm nañ ne yàlla yi dina ko def ndax yonent bee ko wax fu ñuy tuddee ñu baax ñi yàlla dana ko wàccee yërmande te biñ fi toogee ba léegi lu baax rek la ñu wax biñ fi dajee ci bëccëg ba léegi lu baax ak la ñu wax kon mën nañoo wax ne bés bii tey ci bési yàlla yi la bokk te yàlla am na ay bés yoo xam ne daf koy fóowu di ci wàccee yërmandeem di ci wàccee ay xéewalam di ci wàcce ay ngëneelam ñu ngi njort ci yàlla ne saa sii ñu toog ni ci la bokk xeebu na tuuti na waaye kam min fiatin xalilatin xalabat mais xalabat kasiratin wallahu yudaaif liman yashaa mën nañoo wax ni kon mbooloo mi ak kuréel gi ci ñooñu la bokk kon yàlla yàlla soppi ñu jamono ubbil ñu ay buntu xéewal ak ay buntu wërsëg ubbil ñu ay buntu naataange defal ñu faju xaajo liñ yàqule ci nawet bii passé yëpp yàlla ñu ko yàlla jangal ci biir di jëm classe ak bàyyi jën bi ñuy tiit ci ni ñuy def sax ba am jiwu waaye yàlla am na ko te yàlla lañ ko yàlla jox jox ko képp ku fi teew ndax tund wii loolu lañ soxla nit ki li mu bëgg dañ koy ñaanal doomi baykat bu bay di jublu si mu ngi tiit fu muy jëlee tool fu muy jëlee jiw fu muy jëlee engrais fu muy jëlee li koy liggéey waaye loolu yëpp yàlla am na ko te danañ koo baax te amaana am na ku joxe wërsëgi addiyaam loolu la ci jublu yal na yàlla dox suñ diggante ak loolu fajal ñu ko te jaarale ko ci Cheikh Ibrahim lépp luñ mos a tawat ci moom te bëgg ko yàlla ñu ko yàlla defal ci barke yonent yàlla Muhammad ci barke Cheikh Tidiane radiallahu anhu yal na yàlla def jàmm ci dëkk bi te naatal ko te barkeel ko boole ko ci dëkk yi nga xam ne yàlla barkeel na leen ci réew mi wàccee fi courant wàccee fi fi lépp ndox ak courant ak lépp luñ bëgg yàlla am na ko te soxla nañ ko te moom doyoo ko dara te yal na yàlla tàggat jaami yàlla yi koy indi ba indi leen ko ci barke yonent yàlla Muhammad ci barke Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci ñaan oustaz ndigal pare dañoo bëri fu ñu bëgg a jaar ci lu mel nii sañu noonu ñàkk ñëw ci lu mel nii ndax kóllëre gu ñu am ak waa dëkk bi te kóllëre lu ñu sàmm la ci la dañuy dox di ñëw sax danañ dox ñëw bokk ak ñoom seen mbégte gii te xam nañ ne lii mbégte la ci ñoom jotaay bii seen mbégte la seen i la te xam nañ fi dëkk bi toll ci ñun fu ko raw ñun tamit foofu lañ toll ci ñoom moo tax sañu ñëw ñàkk ñëw uy si oote bii nii pour dem uy ji ko feneen ñaan yàlla defal la tawfiq defal la taysiir ba nga xam ne lépp loo fi bëgg a wax da nga wax lu gën a kawe seen jort ci xel ak ci xam-xam yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def yàlla yàlla def ci ñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin الذي يقلب الأعيان بالأعيان ويرفع أقواما في الزمان والمكان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين الذي علمنا أن مواسم العمر يربح فيها من يربح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 في الحقيقة بدا برق من المرابع يلمع ونحن جميعا عيون تدمع إذ تمثل بيننا فلزة كبد شيخ الإسلام وبركة الأنام من المدينة الجديدة مركز القطب الفريد من تلك الأراضي النقية القريبة التي وصف الشيخ رجالها بأن لهم أذواقا كذوق ابن عرب الحاتمي وما أدراك من هو عني خذوا وبي اقتدوا وليسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى الذي شرب مدام الشوق والمحبة ووصف كأس الشوق والمحبة والمعرفة حين سئل عن وصفها فقال أجل عندي لأوصافها علم وفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم تقدم كل الكائنات حديثها قديما فلا شكل هناك ولا رسم والذي هنى أهل الدير المحبة حين قال هنيئا لأهل الدير إذ سكروا بها وما شربوا منها ولكنهم هموا فنحن هممنا شرب هذا المدامة فسكرنا بهذا بهذه المحبة فما بالنا إذا تمثل أمامنا عين من تلك العيون الغالية العالية مولانا الشيخ الحاج محمد زينب نجل مولانا الشيخ أحمد دام إبراهيم نجل الشيخ عبد الله نجل الشيخ محمد نجل الكرام البرر الذين ورثوا المجد والكرم والكرم كابرا عن كابر يحضرني قول الشيخ إبراهيم في حق الشيخ أحمد وفي حق أخيه الشيخ أحمد وفي طريق أحمد وأحمد نجلايا تم فيهما ما أقصد وكأني بالشيخ محمد الحسن ابن أحمد الخديم يقول في حق الشيخ أحمد دام بشرى لصحب الشيخ إذ أحمد عاد لهم وعوده أحمد يكفيه فخرا كونه منفردا أبوه هو علم هو العلم المفرد وقال فيه أيضا يقضى لنا الحاج لما زارنا الحاج فالحاج أحمد قد يقضى به الحاج فالحاج منهاجه المرضي مرتبط إذ هو للحاج إبراهيم منهاج إنا بكم لا نرجي أن يدوم لنا سراج معرفة في القلب وهاج دمتم لنهج الإمام الختم قطب رحى لكلكم زان من تجانه تاج هذه أقوال قالها من هو أعرف منا بالذات الأحمدي التي انبجست من الذات الإبراهيمية مقي ñu ngi am mbégte torop boo xam ne dafa fees xol làmmiñ lott ci wax ko ñuy tàmbali li ñu fi tax a daje li ñu li ci suñu wàll ci turu buur kii borom bi subhanahu wa taala di ko sant di ko gërëm di ko tagg di ko màggal di julli ci sangu sang yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mboole mi toppam di nuyu waa jitaay bi yëpp di jiital ci nuyoo bi cheikh baay alxaaj mi nga xam ne ci qasida bi nga way léegi abarkun bada naxwa almarabii yalmacu fahab nimraan id yalma'u albarqu yadma'u bàyyi dafa bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama ba mu melxatee mu seen mu nekk ci wàlli dëkki yonant bi sax mu ne rongi ñam yaa ngay tuur bu fekkee nag ne bàyyi nampal nañu bëgg boobu ci yonant bi te ñu bëgg ko yonant bi ci moom bàyyi suñ toogee ba jëmmam toog suñu biir ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne jant bi fenk na walla weer wi génn na wala daal leer bi jolli na daal fees mboolem xol yi bàyyeekoo ci dëkk bu sell boobu nga xam ne mooy Madina di centre bi nga xam ne fi lañ stocké maarifatu billahi muy seddali ko ci jaami yàlla yi Cheikh Baye Alhaaj marhaban bikum wa ahlan wa sahlan bayna ahbabikum wa ahbabi walidikum wa ahbabi jaddikum wa halumma jarran di am mbégte lool ci dajeeg yow ci jotaay bi bokk ko ak yow taataan ci sa kàddu yi nokkeeloo ak yow ci nafaxaat yi nga xam ne Oustaz Diallo wax na ko yonent bi moo ñu xiirtal ci ñu koy gaarlu ndax amaan na ëppin dal ñu ci ñu texee ci te dootuñ texee ji ba mukk kii dafay tagg Mawlana Cheikh Ahmed te bu may wax ci Mawlana Cheikh Ahmed parce mooy yow yow yaa teew tey di jëmmam ja di jëmmi Cheikh Ibrahima kii ne al alxaaju yuqdaa lana alxaaju amaan na wala yuqdaa lana lana alxaaju baaxoon nañ ñuy faj suñ aajo yi lamma zaarana alxaaju waxtu wu ñu alxaaji Ahmed daam ziyaarate suñ aajo yëpp faju falxaaju Ahmedu qad yuqdaa bihi alxaaju xaaji Ahmed daam dafa di koo xam ne aajo yi dañ ci fajoo mbir yi def ci sotti yi yi dese woon a jag def ci jagee yi tëwoon a sotti def ci sottee kon alxaaji ahmadu moomu rek moo nekk suñ kanam falxaaju minhaajuhu almardiyu murtabatun mu ne alxaaji ahmad méthode am bi nga xam ne amul sikk ne bàyyi gërëm na méthode boobu ñëpp a ko ci ñii suufeel boppam te kawe lool ci woyofal boppam ca diis lool ci wàcc ba jege nit te sori leen lool arab ba ba muy tagg buur ba te kii raw na buur ndax nguur gi mu amee bu ko buuri addina yi xamoon jaay seen nguur gi pour am les les ci li mu ملك دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريد كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة الساري نجد قريبي دنگا دنگا جيگي واي دنگا سوري دنگا مل نيوير ليرام بي جيگي ناني نيواي جيمم جي دافا كوي بكين منو فا ايك شيخ احمد جي ما خام جي خام خامم جي تابيم جي وايو فام دافا جيگي ناني نيواي جي ما خامم كين سينو من سيراجو ان اذ هو lil xaaji Ibrahima minhaaj lu may loolu mu ne parce que xaaji Ahmad minhaaj la méthode la yoon la bu bàyyi xàll pour nit ñi jaar ci inna bikum la nuraji an yaduuma lana siraaju maarifatin bil qalbi wa xaaji mu ne ñu ngi ñaan yàlla tey yaakaar yàlla taalal ñu làmp xam yàlla buy ñu loolu ci sa jëmm ji ci Ahmed dumtum li nahjil imaamil xatmi qutba raha mu ne jal na ngeen sax di nekk ndeyu mbillëg li nga xam ne mooy mbirum sayidi ahmed tijani li kullikum zaana min tijanihi taaj mu ne képp kenn ci yéen am na taaj muy mbaxana buur boo xam ne moo ko taaral ku bàyyee ko ci Mawlana Cheikh Ahmed Tijani loolu wiraasa muhaqqaqa la kooku la doomam toog suñu biir tey te ñu koy jéggalu sax ci jamono ci waxtu wi ñu ko fi tey xëy na président moo moo ci sañ wax waaye lu mat a xel la moo tax ma ne ko woon may ma rek ba ma delloo la nuyoo parce que asalaamu aleykum bi nga wax nee naa wa aleykum salaam ci suma làmmiñ ci suma xol mais bëgg naa mbooloo mi dégg déggaat kan mooy Cheikh Ahmad kon ñu xam ci toog seen biir bu dee doomam la kon mooy kan loolu mbégte mu rëy la ci gox bi ñu ci am yaakaar bu rëy li fi ñaan yal na ko yàlla nangu li nga yéene mbooloo mi yéene ko gox bi te tudd nga ci lu bari yal na ko yàlla tottal yal na ko yàlla def mbooloo mi yal na yokku fédération Ansaaru Diin bu Nioro Alassane Tall yal na des di nibraas des bi misaal bu ñuy roy foog naa ne loolu la loolu la Cheikh Issa di seede ci ñoom Cheikh Ali Niang mu Seyda Ruqiya léegi la jóge suñu kër léegi léegi léegi bi may laata ñëw bokk na ci li tax jullewu ma fi tàkkusaan parce que man bouton la man bouton la soo ma ne julle fi tàkkusaan rek lalal ma fu ma julle looloo tax jullewu ma fi tàkkusaan parce que Cheikh Ali Niang moo ñëw mënuma ko faa bàyyi kii oo ma ne maa ngi ñëw léegi pour ànd ak yow may négandi ko loolu mujj naa yëg ci sax may xaar ñeneen ñoo xam ne ci dëkk ba lañ ne woon ak man mu mel ni kon looloo tax ñëwuma mais bi ma ko waxee ne ko fédération ñoo Alassane Tall ñoo organisé bis bu waxal ko ni bis bi di demee daf ma ne ñooñu day président Issa Ba dafa dëkk di leen takk loolu la ma wax léegi ma ne président Issa Ba dëkk di tagg waa fédération Nioro Alassane Tall mu ne su ma ko yëgoon teel ma dem fekkee loolu comme koo xam ne moo jiite kaw la vraiment ngeen xam ne seen président bi ki ko ki ko tiimit moom gërëm na seen yëngatu bi te loolu dañ koy wax rek pour gën a feddali waaye signature bi ci sëriñ bi signé rek doy na sëkk sëriñ bi lii rek lañ bëggoon yëkkati ci ay kàddu nga ñaanal mbooloo mi ñaanal ñu yàlla may ñu ndigal ñu tàmbali waxtaan bu jëm ci ndaw ak taxawaayam ci ak askan wi ci dund bi waaye lépp nag ci njàngale bàyyi kese lañ koy jàngale suñ demee bay bay jeexal ni ko Babacar waxee te yëgu leen ne ci bàyyi laay wax boobaa ma wax ci bàyyi ñi nga xam ne mënuñoo xam ne ci bàyyi ngay wax fekk waxoo bàyyi foo fekk tuddoo turam ma ñëw ci bàyyi ci ni ngeen ko bëggee waaye man lu may wax rek ci bàyyi laay wax dama fekkee waxtaanu Cheikh Baraam Diop yal na ko yàlla dolli leer ca yoo ca jëppal muy waxtaan ci yonant bi waxtaan bu doy waar am ku jóg mooy gaa yi majjur yi rek waxal ci bàyyi mu ne ko xëy yow yëgoo ci bàyyi lay wax <laughs> ndeysaan ak ni mu mënee jàngal lool la ko tontu kon yow yëguloo ne ci bàyyi lay wax moom yëggoon na ci bàyyi mu ngi xàmmee bàyyi ak keneen ba léegi mooy bàyyi mooy ana nafsu wala afaaqu bu ñuy waxtaan ci afaaq yi rek ñu ngi waxtaan ci nafsu bi kon sëriñ bi loolu rek lañ bëggoon a euh, wax nuyoo la ko rek te vraiment bëggatuñ la fay téye lu ëpp liñ la fi ma doog a nuyu démb guddi gi ñu bàyyee ko moo doon seen gàmm maa ci àndoon ak ñoom waaye gis nga ñu war a xëy noppali koog yooyu ñu àndaat ak man ñëw ci bés bi fekk la si waa Nioro Alassane Tall fay si parce que Papa Ndiaye moom macha allah du tàn xam lu dara Cheikh Issa Ba te wala ma bàyyi ba bu may waxtaan ci jeunesse parce que moom jeune la jeune la xam nga nit da nga nekk sax maggat mel ni bàyyi dramé te nekk jeune ci itte nekk jeune ci taxawaay loo xam nag ci koo xam ne jeune la ci âge mais jën la ci taxawaay di mbër bu mag di soldaar bu am doole buy liggéeyal xadra bi fii ci département de Foundiougne naw nañ département département bi ci lu bari yàlla ak njàmbaaram la la Baye waxoon ci président Senghor ne naw nañ Sénégal fu bari ci addina bi yàlla njàmbaaru président Senghor la kon loolu it mën nañ koo àbb wax ko ci Cheikh Issa di nuyu Cheikh Mouhamed Touré li nga xam ne moo amee communication ci fédération bi moom ngeen gis mu toog nii ci wetam xam naa su ma toppee nuyoo waxtaan wi day mujj doon ay protocole te man sax loolu mënewuma ko ñu jàng aaya pour dugg ci thème bi suñu boroom subhanahu wa ci xamal ñu lan mooy âge ndaw étape ak saison wu jeunesse yàlla ne huwa alladi xalaqakum min turab tumma min nutfatin tumma min alaqatin tumma yuxrijukum tiflan tumma litablugu ashuddakum tumma litakunu shuyuxan wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablugu ajalan musamman wa laallakum taqilun yàlla ne man maa leen bind yéen doomu aadama yi ngeen bàyyee ci suuf maanaam seen maam aadama ci suuf la bàyyee ko summa min nutfatin gannaaw gi ku ma nammatee amal ci mbindeef yi man maa ngi ko jaarale ci nutfa muy ndox muy bàyyee ci góor ak jigéen summa min alaqatin ndox moomu bu bu bu bu dalee fi mu war a dal bu yàggee mu soppeeku lumbu deret mooy état bi nekk ci biiru yaay yépp mu ngi noonu comme ni mu ko waxee ci suuratul mu'minuun ba ci summa anshanaahu xal anshanaahu xalqan axar fa tabaraka allahu axsanul xaaliqin mu ne summa yuxrijukum tiflan ma daal di leen génne ci aalamu boobu aalam boobu di biiru yaay ma génne leen ngeen nekk ay xale ak tuut ay tuut tànk ngeen dund ba seen aaju ndaw jeex mooy sinnu pufula summa yuxrijukum tiflan day wone benn saison buñ tuddee pufula summa li tablugu ashuddakum gannaaw loolu ngeen egg nag ci seen ak mat seen ak majorité dëgër mooy sinnul sinnu shabab mooy jeunesse summa li takunu shuyuxan mooy wane sinnu sheyxuuxa nga dugg nag ci màggat wa minkum man yutawaffa min qabl am ci yéen ñoo xam ne bañ juddoo rek la leen yàlla faat ñoom jaaruñ sax ci sinn yooyu yëpp daaw jotuñ cee yegg am ñu yegg si ci tufuula jotuñoo yegg ci shabab am ñu yegg ci shabab jotuñoo yegg ci sheyxuuxa yàlla ne wali tablugu ajalan musamman ku nek rek amna dir boy xaar bu joté rek yàlla def liko ko soob ci yow wala allakum tashkurun bo gisee ma jaarale len fi ba nopi di len ko nettali te ma bëgg ngeen xel bu bu a baax li nga xamne mom lay wax ci alquran diko bind ci téré bi ak diko bind ci gox yi waye diko bind ci seen jëm ji wa fi anfusikum afala tubsirun boroom xam-xam yi wax ne kon doomu aadama mi ngi jaar ci ay étape ci dundam étape bu njëkk bi mooy bi mu juddoo ba ba muy am 15 ans ñaareelu étape bi mooy bu amee quinze ans ba ba muy am 35 loolu lañ wax ne mooy jeunesse beneen étape bi mooy bu amee 35 ans ba keroog muy am cinquante ans. mooy la li ñuy waxee la mi ngi commencé dugg ci ci màggat ñeenteelu étape bi mooy bi mu amee cinquante ans ba keroog muy am soixante dix ans mu nekk nag koo xam ne dafa dem nag ba mage lool waaye mën na faa paase ñenn ñi doonte bariwut yonent bi na amaaru ummati ma bayna sittina wa sabiin su ma dund xeet wi diggante soixante ans la ak soixante-dix ans lu ci tegu rek sarax la walla boog buñaa la mu dalee soixante-dix ans ba fa muy jeexee ji loolu mooy sinnul haram lii yëpp yàlla def ñuy junj rek ne doomu aadama dafa jaar ay étape yoo xam ne jar na ci bàyyi jar na mu bàyyi ci xel bu baax ci beneen aaya ca suratul hadid innama alxayatu dunya laibun wa lahwun wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يلا جانغال نانيو فوفو اي جار جار بروم خام خامي ني نان يالا جار انما الحياه الدنيا امول تيك أدين بي لعيب ام بولا ني خالي موكاي bi mu juddoo ba 15 ans day fo mooy loo xam ne da koy def te mu nekk lu naturel ci moom lu ko def am lu mu ci lu mu ci lu mu ci visé ci ay intérêt wa laxwun laxwun mooy caaxaan mag mooy caaxaan mooy 15 ans jëm 35 ans loolu moom boo fay defati lu ñuy tuddee fo kenn du ne mag mag muy fo mag muy caaxaan lañu wax mooy wa laxwun wa ziinatun bu amee 35 bu dee góor ma commencé naan léegi ku coofe la dafa coofe comme ni ko xale yi di waxee ngeen di ma baal yéen papa Dramé léeg-léeg dama bëgg jeunesse bi dégg li may wax ndax seen langage la bu fekkee xale bu jigéen ma commencé mel noo xam ne bu rombee penc ci xale yu góor yi ñu tànn ko ay traas yooyu wane na mel ci wàllu taar wa ziina yàlla nee na âge boobu moom jaay taar la buñ rombee aju jaay taar jàng génn ci moyen secondaire dem dem dem étude supérieure ñu génn nag ay diplôme commencé am ay ay ay ay ay fonction di liggéey commencé am ay salaire mu ne watakaas watafaaxurun baynakum man maa ngi fac médecine kenn ko man maa ngi def formation informatique kii ne man maa ngi liggéey barab sàngam kii ne man damay tukki ku nekk yaa ngi yaa ngi commencé puugarewu di tiitaroo li nga jàpp ne yàlla la ko baaxee nga jàpp ne yow yaa ko rawee sa morom bu loolu paasee yaa ngi commencé wan sa dund gannaaw li ëpp ci sa dund yaa ngi koy commencé sànni sa gannaaw sa janta ngi sa janta ngi waaja so waaye jantu sa doom yi mi ngi commencé fenk wa takaasurun baynakum fil amwal commencé ñëw maa la ëppi doom maa la ëpp alal yooyu commencé ñëw yàlla ne loolu yëpp dafa mel ni rek taw moo xam ne nawet boo xam ne ndox ma bari na nit ñi ji mu sax rafet lool gàncax bi rafet waaye balaa yàgg rek mu wow nit ñi di ko dëggaat ba mu nekk xutaam mu ne loolu mbiri àddina rek te balaa yàgg mu jeex kon yow yaay nawet boobu fi nawet bi dooree dëgg dëgg dëgg nag mooy fi nga nekkee jeune nga xam ne yow suuf suuf nga bu nangu boo xam ne lu ñu ci ji rek dana sax te bu saxee dana rafet te bu ëllëgee mën naa joxe ngoobeef war ngaa sonn moos ba suuf su naat boobu noonu bu nëtëx boobu bu ko yàq yàlla waxaat ci beneen aaya allahu alladi xalaqakum min daafin summa jaala min baadi daafin qaw quwatan tuma jaala min baadi quwatin daafan wa shaybatan yaxluqu ma yasha wa huwa alalimu alqadir yàlla nee na maa leen bind ci ak néew doole moom ngeen jëkkee bi ngeen nekkee xale nekk ndaw amuleen woon doole gannaaw loolu ma def ci yéen doole roof ci yéen kàttan gannaaw gi ma rocci waat kàttan gi ngeen delluwaat ci néew doole gannaaw gi ma jële leen ngeen buy boo seetloo aaya bi kon wax na ne ci ci néew doole nga commencé wax na it ne ci néew doole ngay mujjee digg bi rek mooy fi ngay amee doole fi ngay amee kàttan mooy âge u jeunesse kon toujours dama dama koy tënk ma ne kon jeune buñ buñ ma laajoon définition jeune waxambaane te buñ ne waxambaane rek ñu ngi ci bàyyi xel bu góor bi waaye ñu ngi ci bàyyi xel maatam ci jigéen ñi dañuy dugg ci lépp lu ñuy wax mooy doole ji nga xam ne moo nekk ci diggante ñaari néew doole yi walla borom doole bi borom kàttan bi nga xam ne moo nekk ci diggante ñaar ñu néew doole ñi xale bi ci neew doole la nekk mag mi ci neew doole la nekk yow miy waxambaane yaa nekk ci diggante ñaar ñooñu mm-hmm. loolu daf lay jàngal rôle bi nga xam ne moo lay xaar ci dund bi bi mooy la xale bi lim mën a gudd yow la ci yaakaar xale bi ki néew doole tey xale li mu mën a gul yow yow la ci yaakaar ki mag lim mën tul yow la ci yaakaar loolu rek doyoon na pour ñu joxe micro bi te doxi suñ yow yow kon yow miy waxambaane di dox ci mbedd mi xamal ne kër ga ñaar ñii ñoo fa nekk yaa leen ñetteel kii xale la mën a gudd yenn yi kii mag la mënatul yenn yi yow loolu yëpp ci sa ndogg la daje kon war ngaa xam yaay kan war ngaa fexe ba ndaw li fekk la fi mu lay xaar ci lim mën a du war ngaa fexe ba mag mi fekk la fi mu lay xaar nga fekk ko fi mu lay xaar ci li mënatul te pour loolu nga respecté ko da ngay baxel ne démb yaa doon ki mën a gudd te dañ laa dimbale ba nga man kon nga fay naar bi xorom nga ba xel ne ëllëg da nga yegg ci mënatoo te bëgg nga boo mënatulee am ku man ku la dimbale docteur nee su ma neexee ma man am na lu may xaar jéem loolu rek presque jeexal na li nga xam ne moom moo moo mooy wane sa rôle bi mu am lu doy waar nag loo xam ne ku ne war nga koo moytu mooy tas yaakaar tas nga yaakaar yi ki mën a gut tas nga yaakaar ki mën a tur du kon loolu mooy taxawaay loolu la yàlla xam moom mi ko tëralee noonu ba ñi mu responsabilisé ci addina bi yëpp ci âge jeunesse la leen jox seen responsabilité boobu kon ñu waxal la importance wu étape boobu bu ci nit tawloo alshababu dayfun la yaud nekk di ndaw gan la bu lay ganet yi te bu bu bu tàggoo dootul ñëwati mukk bala ngaa xam loolu rek nga mënoon wéet ak suñu papa yi rek ba ndeysaan ñi ci yàlla nattoo om bu om buy mi ndigg lu lu lu bañ bët yu naqadi nopp yoo xam ne xaw naa naqadi mu wóor la ne loolu delluwut gannaaw delluwut gannaaw kon waxtu wi loolu nangoo na nga bàyyi xel ne yàlla def laa abal te xal naa jël si li mu la abal والمرء مثل هلال عند طلعته يبدو ضئيلا لطيفا ثم يتسق يزداد حتى إذا ما تم أعقبه كر الجديدين نقصا ثم يمتحق كان الشباب رداء قد بهجت به فقد تطاير منه للبلا خارق mu ne nit dafa mel ni weeru teerute bii ci asamaan sa sa dund bi la lay jàngal su weer wi fenkee day tuuti mooy bi nga juddee ni nga tuutee woon weeru atamaan di màgg di la wax ne yaa ngi noonu yaa ngi noonu di màgg di màgg di màgg di màgg di màgg ba keroog summa yattasiqu muy def wërngal def room ma tëkk nekk badru tim wala badru tamaam ma tëkk rafet lool mooy jeune bi dug duggi ci dëkk bi deret baa ngi tàng di daw ba yaa ngi leer oom yi nangu ndig ndig li dëgër nopp yi dégg dara teewu ko mu jàpp ne bu asamaan doon wàcc dafay joxoñ rek mu dellu fam ne woon mu ne waaye balaa yàgg rek nga gis weer wi commencé yi wàcc wàññeekuwaat weer di wàññeekuwaat di wàññeekuwaat di wàññeekuwaat ba keroog ñu naan weer wi xëy na xaw ma gontu na xaw ma la ñuy wax mooy boo demee hôpital yàllaa ngi waaj li muy waaj jékki-jékki ñu ne weer weer woowu sax am na sax day fenkaat pour jàngal sa morom yàlla junj ñu loolu ci alquran ne yasalunaka anil ahilla gaa ñi dañuy faral di la laajte yow yonant bi di la laaj weeru terute bu ndaw bi lu tax muy ndaw léeg-léeg mu mu mu mu màgg léeg mu ndawaat loolu lañ doon laajte ci uslubul hakim ci ñi jàng balaaxa yàlla tontuwut ci loolu parce que loolu amul solo ci ñoom ñii laaj mu ne qul hiya mawaqitu linnas wal xamal leen ne weer wi kat liñ waroon laaj te mu nekk lu pratique loo xam ne dañ koy daal di jëfandikoo léegi duut lu tax muy wàññeeka muy wàññeekoo yokk yokku mais liñ waroon laaj mooy loolu lu mu leen di jëriñ ne leen daf dama bëgg ñu chronomètre ci seen dund bi chronomètre ci seen jaamu yàlla yi mawaaqiitu linnaas ci seen yitte yi wal xaj seen wàllu diine lépp dañ ko tënk ci heure moo tax suñ ne quatre heures rek maanaam li nga waroon def démb te defuloo ko démb mën nga ko def tey mais waxtu wa nga amoon démb waroon ko cee def waxtu woowu mënuloo koo delloo xas na la faat fii fini li nga waroon def démb boo ko defee tey parce que li nga waroon def tey nga ba pour def ci lu démb toujours yaa ngi am bor moom la bàyyi doon junj bi mu naan ku yokkootu rek da nga wàññi ko booy dem boo doxatul bul foog ne da ngaa taxaw de yaa ngi dellu gannaaw parce que fii nga taxaw cinq heures zéro minute fii nga taxaw cinq heures demee jot du da ngaa dellu ay pas ci gannaaw mais boo gisee mu ne la da ngaa dellu gannaaw parce que boo taxawutoon cinq heures demi fu mu la doon fekk kon fa la cinq heures demi waroon fekk te yaa ngi taxaw fii ba cinq heures demi fekk la arrière nga lu toll ni li nga waroon dox cinq heures zéro minute ba cinq te lii rek moo tardel Afrique Afrique lii tax développé ko jafe damay wax xale yi ci suma classe ne leen su ma nekkoon président de la république danaa organiser conseil des ministres ministre tardé quinze minutes ma dàq ko def conférence de presse ci kanam sénégalais yi ne leen ministre sàngam wàccee naa ko parce que dafa retard quinze minutes conseil des ministres boobu boobu dëkk mooy en voie de développement boobu mooy dëkk bu nekk en voie de développement maa ngi gisoon président Turquie mu bind di wax ni ba mu nekkee président ba tey mooy Erdogan foofu na musul am benn document bu mu war a signé mu tëdd ci lal te nekkul ne signé document yëpp amul benn document ba mu war a te nekkul ne balaa tëdd ci lal dana signé document yëpp mu ne ndax am document bi nga xam ne pour nga signé ko du la jëlal benn minute mën naa yàq avenir u nit buñ xalaatee noonu ñu commencé dem mbir mi du fiñ ko foofu ay wax yu bari yi ay diw nii diw naa loolu du li lu yóbbu li yóbbu réew kanam li yóbbu jullit bi ci kanam mooy changer seen mentalité yi ñu xam ne nit ñi dañu war a xalaat wala allakum taaqiloon bi aaya bi wax kon loolu ci importance su dund bi mokkal nañ junniy bayit maa ko waxee noonu rek jubluwuma ci lim bi waaye damaa wane bari na ñoo xam ne dañuy jooy seen ndaw ah, wala sa wala shababu hamidatan ayaamuhu ya layta dalika yushtara aw yarjiu kii mu ngi naan ndaw dem na yellantu woon ma gisoon fu muy jaay ba ma jënd ko yellantu woon mu doon lu mën a delsi ba ma dem jëli ko mu delsi waat ñaareel bi wane importance am mooy ndaw mooy jiw mooy ji jiw jiw jiw ba yoo xam ne moom la askan bi amee loolu neex naa wax fii bu nawet dëgg malee baykat bu amul jiw am nga problème xamal ne yow mi jeune yow yaay jiw ci kër gi am de yow yaay jiw ci société bi waa suñ jiw yi xool leen dañ koy toppatooy dañ koy xool li tànn ko def ko ci ay saaku gis naa léegi ñu koy def ci ay bidon Ahmad Diallo oustaz waxoon nañu pour nga nga def ko waaye nee nga baax na kon def naa ñu ngi lay gërëm bu baax Ahmad ñu ngi lay gërëm bu di gërëm Cheikh Ahmad Dramé mii nga xamante ni moo toog wax na ne moom bi yëkkati benn kaddu ngir li mu wax yëpp oustaz wax na ko loolu la na du ma yëkkati benn kaddu kaddu yi yëpp labal naa ko ci kaddu yi yi kanaa ñu seedeel ustaas bu baax rek ne kii di sigar nii doomam la mi ngi ci daara ji di jàng ku dégg ni muy jàngee nga xam ne ku respecté li muy wax la waaye ku gëstu ba xam ko la it yàlla Cheikh Ibrahima Ndaw ci waxtu wu nekk waaye terewul ko ak jël durusu bi nga xamante ni moom la ko bàyyeem yóbbu woon mu dem ci daara ji te loolu la nekk ba léegi ñu may ko soxna moom it barki démb ki ko may soxna di Arouna Diallo mi bëgg it ngeen ñaanal ko sëy bi neex te mayee ci njaboot yu góor ak jigéen saalihiin ak saalihaat Cheikh Babou ñu ngi lay ñaanal lool Cheikh Pape wax na ne nag bu ñu sañoon ñu jël euh, président daayira bi mu gërëm waa dëkk bi sant leen mu ne ñaan loolu ne nañ ko ko may mu santal ko waa dëkk bi mu ne ndaw si moo ñëw wax loolu kon nag danañ ko may loolu incha comme Cheikh Ahmad dañu jublu ci décoration yi bu baax rek suñ paree ñu ñaan rek tasaaroo reer ya bu kenn génn reer yaa ngi fi ñun ñëpp ñu xewlu doog a tasaaroo ñu ngi gërëm mbokk yi nga xamante ni ñoo taxawu bés bi ci tasaare ko ci internet bi ba jaami yàlla yëpp man koo jot ci site yi ak ñi nga xamante ni ñooy sikarkat yi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant du wax ne lépp lu si jot loolu la yéene woon ci dëng ngeen xam ne sunu matadi la ak sunu fasaadi kon Cheikh Ahmad Thiam dafa doon askan conférence bi nga def tey macha allah yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla taxawu la barkeel la dëgëral xam-xam bi su saay yàlla mën na koy ci mbir mi rek na dañ war a yeewu mbir mi mooy dafa am ñoo xam ne dañ nekk ci ansaar bi am ci koo xam ne dafa wàññeeku am ñoo xam ne ñu ngi te lépp loo xam ne Ansaarud-Din ñu koy def rek depuis bi nga commencé ba léegi seen lépp seen doole seen xaalis seen lépp ñu ngi ko ciy def ñu ne ñooñu tey dañ leen njukkalal su ko defee dina tax ku mel ni man yaa mosoon gën a mën a góorgóorlu loolu rek lañ ci jublu waaye du gis seen du dara. kon muqaddam bu mag dëkkoon Pangala nekkoon koo xam ne keroog bu Yuusuf Ansaarud-Din moom mag loolu màggeen moom loo xam ne itam xam naa boo bàyyi xel. dafa toog ak moom ñëw kon ku mel ni kooku nekkatul ñu ngi koy ñaanal dana yàlla euh, woyofal suuf si koom yàlla jéggal ko bakkaar ñu ngi koy jox diplôme d'honneur bi doomam mu ngi fi anam kii Ablaye Ablaye Mbow voilà sëñ Issa na jox ko diplôme na tubaab article posthume lii la ñuy wax ci nasaraan décoration artiste postiste mooy ki nga xamante ne liggéey na am Cheikh Alhaji Amadou Dramé mu nekk ni nekk mag moo xam ne lépp loo xam ne Ansaarud Din ñun ñu ngi koy def rek mu ngi suñu gannaaw mu ngi suñu kanam mu ngi suñu wet mu ngi si bépp ñu xelal ñu ñaanal di ànd ak ñun di ñu puus tey luñ bu amee tey yàlla jëmu jiira kon kooku dinañ ko décorer lañ bëgg danañ ko décorer lii ca xew ak ànd la ko diplôme jox ustaas fabal kurus gi soobu waay ci yooni góor ñi nga raw notal ba kenn bi ci pexeem lu lay sànk bul ko gëm kanaan man la xuruj na di ci teg oustaz Tamsir Babacar Sarr mi nga xam ne taarix lot na ci bind histoire am ak Kérédi Diop ndax ren mooy troisième édition boo xam ne waxtu wuñ ko sore danañu amal ak jàppandal ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla mu ngi ci gis tamit suñu imam di imam Ibrahima Lo bu jaamaay Thiamène Kër Saaba gannaaw loolu mu ngi njëkkee woon sant yàlla ak gërëm borom dëkkëram muy suñu najaay Sadio Ba mi nga xam ne moo ko jàppandal liggéey bi yëpp waaye gannaaw loolu yi tamit mu ngi gërëm mboolem ay dëkkandooram rawatina njabootu daayira mu mutahabina fillah bu madina Kéréré Diop yëpp mu tànn ci aray Babacar njaay mi nga xam ne tey moo jiite jamiatul ansaaru diin tànn ci Mouhamadul Basir mi nga xam ne mooy muqaddamul baraka waaye mu ngi gërëm mbooloom yëpp waaye yéen ñi fi ñëwoon tamit waa Kéréré ñu leen di gërëm yéen ñëpp kenn ku ci nekk turam ak jëmmam di leen ñaanal yàlla ngeen dellu ci jàmm yàlla faj mboolem seen aajo ci zaay ak ci baatin yokku leen dëbb ci Maolana Cheikh Ibrahim Niass wax dëgg yàlla gërëm na gërëm goo xam ne lottoon na ci wax lii li ne lim yëg ci boppam waaye man mi ma ko santoo yi pour ma jotal ko it am naa bisaara boo xam ne itamit lottu naa ci loolu waaye maa ngi ñaan yàlla yan na yàlla gërëm jëf yi yan nañu yàlla may ñu teewe déwén te bu déwén gën a ko bu ren oustaz ñu lay gërëm bu baax a baax a baax ñu ngi lay ñaanal yàlla yan na yàlla jàppandal sa yoon yal na yàlla may la riyaadul akbar ba nga am farwal akbar yal na yàlla wëttu la te garante la yokk sa maqaama delloowaat la ci jàmm waxtu wuñ la gisee rek am na yokkute te loolu lay soxla jamono bu nekk sang bi fi jogee yëg na loolu euh, bég na lool waaye bégam yi tamit ñu ñoo ko ñu ngi sant ñu ngi gërëm waaye ñu ngi gërëm yi tamit suñu président ñun di suñ bàyyi Babacar Ndiaye wax dëgg yàlla nit ku am yitte la nit ku xam yitte la ci lii bi dëkk bi bëggee lii man ak moom ak Cheikh Mamadou Bassir ñoo jegee fii dem ba Mérina ci roon imam akbar imam Cheikh mu journée mu métti ci moom ndax ci tukki la ko fekkoon boobu ba tey day takkaari jamono bu nekk ci lu gën a avancé loo lii wax dëgg yàlla lii bi mu ko laajee it dëkk bi du muyu du muyu ko jox nañ ko loxoom lépp ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yokk ko maqaamaam te wëttu ko samp ko garanti ko may ko mu am ay càkkuteefam te lépp ci Kairé Diop la ko jiital wax dëgg yàlla bi ñu ko dénkee lii gis nañ ci moom avancement bu rëy rëy rëy sant nañ ci yàlla lool say bokk gërëm nañ la sant nañ la ñu ngi nuyu suñ maam tamit bàyyi say di itteem ak léppam gis nañ ko ci ay ñaan yàlla ak itteem yëpp Kairé Diop wax dëgg yàlla tey am nañ mbégte mu rëy rëy rëy rëy saakir bi tamit ñu ngi koy ndokkeel yàlla baax tudd na fi am daal yoo xam ne bégloo na ñëpp ñu ngi koy ñaan yaa yàlla gën a yàlla wéral baat gën a yokk sa xam yàlla yokk sa xabul ñu ngi lay ñaanal yàlla bég nañ lool maa ngi gërëm mboolem dëkk bi suma baay yeeg suma yaay yeeg suma nijaay yeeg yëpp ci kalimaak say euh, Juma Diallo mi nga xam ne moom lañ tànn dégg ko lii ñu ngi koy yàlla moom yal na ko yàlla gën a dëgëral yàlla gën koo bëggloo Yëri Jóob Yëri Jóob gën koo bëgg ñu jàppandal ko ci liggéey ba mu yegg fi mu ko yegg wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Saaw sa Babacar ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm délégation bi nga ànd ak sa nga xam ne waxtu wu jot booy ñëw yow ak say mbokk yëpp yéenay ànd taaral suñu bët mënoon nga ñëw yow kenn rek ñu doy waaye bi ci yem da ngay jël say mbokk ak i boromee xam-xam ñu gunge la nga ànd ak ñun ñëw si jotaay bi. waa mit na waa Sàndam Koli yi ñëw ànd ak yow ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen gërëm bu baax di wax ne lii mooy li Moussa ne yàlla maa ngi ñaan nga def suma mbokk mii mu dëgëral ma asdud bihi amri wa asriku fi amri kay nu sabbeka kasiran wa naskuruka kasiran innaka kunta bina basira kon ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di wax ne nit du dëgër du dul ci ay bokkam loolu wan nañu ko wan nañu ko sa biir waxtaan ni nit ak lu mu dëgër dëgër ak lu mu réy réy day fekk ne mbokkee la àndal rek mooy tax biram rëy kon ñu ngi lay ndokkeel bu baax di gis cër boobu nga xam ne jox nga ñu ko di waxit jameetu ansaaru diin diplôme yi ñu joxe joxuñ ko kenn ansaaru diin yëpp lañ ko jox maanaam joxuñ ko xalifa joxuñ ko Pape Ndiaye waaye képp ku nekk ci jameetu ansaaru diin jàppal ne yow lañ décoré ñaaxaate la rek bëgg ñëpp góorgóorlu te lu mën a daj moo tax ñu defee ko nii waaye bu ñu sañoon la ñuy bind ba muy yëgoon bu ñuy bind bu fekkoon yëg naa ko Amath Thiam konoon moom danañ ko bind waaye yëguñu ko moom moo bind jox waaye képp kuñ mérité pour ñu takkal la garaat ci Ansaru Diin moom la bañ ko sosee ba tey mboolem kaddu guñ ci mos a wax ci réunion ba léegi mi ngi yor ak document yi balaa ñuy départ ci réunion bu ñu danañu fàttali loolu yëpp di ñu ko jox ba léegi moo nekk ci loolu kon bu ñuy wax mérite bu ñu war a takkal nit moom moo ko ne yeeyoo ñu takkal ko te moo séddale yëpp te joxul kenn joxul boppam kon na loolu xam ne lu ak lu taaru rek moo tax ñu def lii ak ñaaxaate ak jàngale waaye jubluwuñ si réel kii si ñun kon imaam ñu ngi lay jox kàddu gi. ñuy gërëm oustaz Babacar mu ne yoroon nañu ne. mu ne séntu wuñu woon loolu mu ne du ci wàllu xam waaye ci wàllu waxtu wi lañ séntu wutoon loolu waaye waxtaan wi fasaana profitoo na ci waxtaan wi ba jox ñu lu ñu jëriñ mu ne bi ñuy tàmbalee wax ki ko doon présenté muy oustaz Ahmad Diallo ma ne dafa waxoon ne takallam tuaram waxal rek ñu xam yaay kan mu ne mu dellu waxaat ne almaru marhuunun tahta lisaanihi mu ne kenn ku nekk na nga toll sa mu ne mi si sa suufu làmmiñ sooy wax rek ñu xam ci sa niveau toll kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax imaam nee na mi ngi sant mbooloo mi yëpp waa jameetu ansaaru diin ak ñi leen fekkee si ñëpp ndax woote ñu wulli la mu ne loolu sant yàlla mu ne yàlla wax na ci alquran ne suñ leen wooxee ci loo xam ne daf leen di dundal ci yàlla ak ab yonantum dem leen ngeen wuy kon wuy si nañ ki woote day fo ki wuy si mooy ci dëgg la waaye ki woote ko sant bu woote wutoon ki wuy si yoon boobu du ci jot mu ne bu baax a baax sant ñi nga àndal ñëpp. nit ak mbokk ma. mu ne nit ak mbokk koy gën a dëgëral. mu ne yéen mbokki Oustaz Babacar sant nañ leen gërëm nañ leen. waaye boo àndul ak sa mbokk. ànd ak keneen. yonentu yàlla luut. dañ koo waxoon ne. walaw laa raftuka. la rajamnaaka. bu fekkutoon ne sa mbokk yi nga xamante ni ñoo la faree ginnaaw mu ne konoon dañ lay rey te dañ lay jam ba nga dee. waaye kii mucc na ci loolu. waaye kii moom mucc na ci bi nga xamante ni xam na xàq mbokk. joxe ko ba mu jeex. mu ne ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. di ko sant. wala bu ne. mu ne wolof wax ne. war a def.